Babacar Mbaye Ngaraf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adja Ndeye Babacar Mbaye Ngaraf nga nekk euh, président du mouvement citoyen Alliance Sauver le Sénégal coordonnateur de la plateforme Nayler en tant que membre de la société civile Pastef am na euh, majorité confortable comme nañ koy waxee foofu la ci Assemblée nationale euh, bu Sénégal en tant que membre de la société civile lan ngay xaar kon ci assemblée bu bees bi nga xam ni Pastef ñoo fa ëppale ay député mën a dérouler seen politique kon dañ ci sant yàlla d'abord di gërëm askanu Sénégal bi xam ne wane na ak matam ndax wane c'est un peuple grand boo xam mën na tànn ay députéem fal ay njiitam te du ci xuloo du ci xeex boo xoolee sant yàlla bu baax macha allah élection yi passé déggoo gi sax avion bu dee wala grenade lacrymogène bu buñ sànni nit ñi ne nekk nañ seen kër yeewu dem voté kañ bëgg a voté pare waat dem seen kër benn coow benn weer de sax amu ci. Mhm. ñu sant ci yàlla bu baax. ñu gërëm aussi askan Sénégal yi. Mhm. di encourager opposition bi nga xam ne demoon nañu ci élection yi te perte ndax ñoom it yombal nañ liggéey bi wane si ay responsable lañu indiwuñu benn contestation di féliciter parti bi gagné di ko ñaax ci ndam li jikko nga xam léegi nag comme am na tous les mu jublu nag ci liggéey bi Sénégal yi bañ am kersa ba a am rëccu ci pal gi leen fal. Mm. kon gis nga ne yow daal dara mënatul euh, tere euh, état bi dérouler euh, programme bi mu tuddee plan Sénégal deux mille cinquante gannaaw ba ñu leen joxe assemblée ba ba noppi est-ce que jox assemblée bi aussi lu bees la parce que ñu ne am na ñuy wax ni li fu am ci élection législative anticipée yi c'est la première fois au Sénégal wala li muy am bariwul est-ce que mën nga ci mën nga ci ñëwaat ak ñun un peu en tant qu'enseignant waaw loolu de ci li ñu jàng ci école di ko jàngale mhm. dafay wedd lii de lii de weddiwu parce que Sénégal yi ñu ngi commencé bi ñu am indépendance léegi laa wax bokk li ñuy xewal saa su mooy chaque fois bu ñu falee nguur gu bees dañ ko jox assemblée bi ci député yu doy sëkk ngir permettre ko mu liggéey liggéey bi ñuy xaar ci moom la ñuy wax mu déroulé son programme fàttali ko 1963 100 pour cent. la Senghor am. l'université hmm. à l'époque des partis uniques. Abdou Diouf bi muy ñëw en 1983 93 pour cent la am suma juumee 93 pour cent des sièges di ñëw. Hmm. nga jóge fa Abdoulaye Wade di ñëw en 2000. législative am yaa ngi faral di amoon ci député. 89 hmm. sur 120. donc kon 71 et quelques pour cent. Macky Sall daal ñëw en euh, moom tamit am 79 et quelques virgule 3 pour cent. kon boo xoolee chaque fois ab nguur gu ba su installé woo euh, élection njëkk yi législative yi ak yenn saa yi sax ba ca topp peuple dafay jox majorité confortable ndax loolu moo jaadu bu opposition jàppee da laa bu jàppee ni dan laa jox fital mhm. waaye joxaguñ la bal bal yi mooy assemblée mhm. dana la koy jox ngir mën a jam mhm. kon boo xoolee pourcentage yi xoolal mi li bon en ko jàngul sax boo tappoon léegi internet mu jox la résultat élection législative 1963 yi ci njëkk a am. Mhm. Sénégal indépendant. Mhm. jox la 1983 temps Abdou Diouf temps Abdoulaye Wade jox Sall boo xoolee résultat noonu yëpp score yu mel ni mooy am parce que encore une fois Sénégal dañuy bëgg a jox score fleuve. Mhm. pour nga mën a am majorité confortable nga xam yow quel que alpha bu ñemee assemblée ëllëg. député sa député même bu dee am nañu absenté sax du la wàññi dara parce que nga am la majorité requise pour mën a jàllale li nga bëgg a jàllale mën a mettre en œuvre sa programme kon mel na ni amul lu bees fi am amul tamit lu phénoménal mbaa lu exceptionnel mhm. fi am di di di muñ loo rek encore une fois opposition bi di muñ loo également régime bi parti au pouvoir bi ñu am xolu muñ te nangu ni constitution sénégalaise ñoo ni Sénégal du monarchie. Mhm. du royaume réew démocratie la dafay am majorité buy gouverner am minorité buy opposé loolu moo tax ci biir constitution bi ñu duggal ci ay àq ak yelleef yoo xam dañ ko jox euh, opposition bi nu ñu joxe doole euh, pouvoir bi loolu yi na ko gars yi xam. Mhm. accepter opposition seen statut nangul sax statut du chef de ndax. constitution bi jël ay pouvoir conféré ko président applique conféré ko génne gouvernement bi moo jël aussi ay àq ak yelleef jox ko opposition bu nekk nangu la sama la nga doon rek liggéey bi mën naa dox ndax li war a xam gis nga comme courant dafa am plus am moins sa batterie oto léegi boo sa batterie oto sa sa batterie dafa plus am moins su moins bi oto du tàkk de mm-hmm. plus lu muy baax baax baax su moyen bi dañee du tàkk mhm. da ngay jël plus ak moyen mu soog mën a am batterie moo am si sunu kër moo am partout àdduna bi sax dafa am guddeeg bëccëg dafa am guddi am bëccëg mhm. une manière de dire que ni il faut ñu xam ne réewu démocratie mais opposition daf cee baax mhm. ndax day tax muy ñaax di tañañal pouvoir ndax mu liggéey loolu nag dañu war kon dooleel également opposition non pas ci force yu bari waaye mooy nangu àq ak àqam ak yelleefam pourquoi may ñaan di mhm. parce que quelque fois discours yi da dégg sax nit ñi ne ci nguur ni ñuy waxee mel ni ñu opposition war leen ñu tudd mhm. c'est pas normal opposition dafa bokk ci am réew loolu moo jaadu voilà léegi Babacar Mbaye Ngaraf yow nga porté woon ay dossier euh, bëgg mu leer comme euh, par exemple dossier ONAS ASER euh, nga dégg kile di Ousmane Sonko ne suñu amee majorité am nañ ko ba noppi daañu teg haute cour de justice topp si aussi ministre yi ak DG yi fi nekkoon di luubal xaalisu askan wi lan ngay xaar ci haute cour de justice boobule ak aussi yow dossier yi nga xam ni da nga porté la combat pour mu leer waa xam nga euh, man xawoon na ma sax jaaxal ampleur bi installation heure courte jëloon mm-hmm. ndax loolu par force la mi ngi mel comme tey yow nekk Mody Bako naan dina naan journal dina am midi parce que loolu ça en dans le normal des choses. Mm-hmm. wala ni ko taxaw naan bu timis jotee dinaa ndogu. Mm-hmm. mais jarul c'est tellement évident woor kañ ko woor. timis kañ ci ci ci ci la ñuy dog quoi. Mhm, dëgg la man loolu laa xam Sénégal bokk. Mhm. kon amul benn am benn intérêt taxaw naan papa wala yaay man woor naa ba toujours dinaa ndogu te timis ak ak ndog ko ñoo ànd. Mhm. wala ñu naan non non non xëy na bu bu bu guddi jotee dina lëndëm mais guddi kañ ak lëndëm ñoo ànd. haute cour de justice ci assemblée la bokk à chaque fois que assemblée ñëw daf koy installé. léegi nag pare nañ ci nañ ko installé mu def liggéeyam. Mhm. liñ ci ñaan rek mooy bañ nekk aw yat bu ñuy jëriñoo di ko dóoree adversaire politique bañ nekk également ay instrument pour ñu mën a chantage ay nit ñu mën a rallier le parti au pouvoir ci sax ma ragal ko. mais mhm. damaa gis élection yi passé transhumance bi ñu doon ŋàññi lool ñun ñëpp ñu ngi ci fësal lool te loolu du jëm jéggi dayo la. Mhm. beneen bi ci topp mooy réduction des comptes loolu dafa dafa c'est encore une nekk dans l'ordonnement des sos loolu dafa jaadu. Hmm. ci gestion. Hmm. liñ ciy bañ kañ mooy kumba am ndey kumba amul ndey waxtaan xaj waxtaan seen ni ñuy yemale ñëpp te jàpp naa ne sax nguur gi bees gi nii pour donner exemple dafa na commencé ci boppam ñun néew diw moo jël wala diw jëlul mais dans la mesure am na yoo xam ni coow li bari na man premier ministre wala président du ma layal kenn damay jël ñooñu bàyyi yoon def liggéeyam. ba seet ko bu nee ba ni li ñu leen tumal ko dëgg la ñu daan leen ñu koy waxee mu nekk un exemple ak un signal fort ñu xam li ma doon nekkul lu ma doon caaxaane lu ma gëm la. Hmm. ak foo mën a bokk waaye fa du yoon yoon day dal mu ne woon aussi yoon jël dossier yi. Hmm. muy ASER. Hmm. muy ONAS muy bu mu doon pour man dama jàpp très honnêtement que ni occasion woon aubaine pour nguur gi mën ca wane boppam. premier ministre dégg naa ko mu taxaw cette année non dañuy wax mais ASER ANACIM am zéro scandale la. Hmm. mais li nga gën a def critique bi mooy ñi nekk sama njaboot comme da ngeen di maa ngi leen di yoon gëstu leen loolu sax moo gën a baax. Hmm. du yoon gëstoo comme man xam naa ne li ci man sax maa war a bi jébal ko ci yoon ba yoon gëstu ko daan ne ay ñii kat defuñu dara daa tax el kuy mën a woo nga dem wuy ji te kenn du ci gis ni affaire dafa am par parlo dafa am ñàkk a tëddee njaaxanaay. Hmm. waaw ñun nag tey dañu gën a xaar. Hmm, si si mbir ay ay nderaange ci mbiru euh, azer bi. Hmm. ak ak ONAS bi te incha allah ree bi. bu bu bu bu bu ñu installé assemblée bi dinañ dem ah jéem a xool ci diggante bi du ñuy saisir l' assemblée pour une commission d' enquête parlementaire. ci affaire affaire affaire azer bi. te doon nañ jàpp ne aussi tey nga xam léegi la bonne gouvernance dafa bokk ci li am solo. ci référentiel deux mille bi mhm. bi ko comparé à un baobab dañ ni bonne gouvernance engagement africain ñoom sax ñoom ñooy racine baobab jàpp garab lu mu am am doole bu racine yi baaxul ci mab la jëm dans ce pour wane ni que li ñuy wax dëgg si ñun danañ joindre l'acte à la parole pourquoi pas sax assemblée de commission une commission bonne gouvernance nga xam dina permettre aux citoyens chaque fois lu ko jaaxal mu gëstu gëstu ne leerul mu mën dem saisir assemblée à travers cette commission pour ñu mën a xool nañu leerale mbir mu mel noonu loolu jàkkaar nañu. réforme mhm. bu war a bees la. comme aussi ni ñu waree honoré engagement yi ñu jëloon par rapport. Mhm. ci affaire abrogation la loi d'amnistie bi mhm. criminalisation de l'homosexualité ak yu mel noonu. ñu taxaw si. Euh, beneen euh, aussi euh, mbir moo xam ne ñu ngi si débat actuellement moom mooy publication déclaration de patrimoine bu Sonko monte tey def na ko mais kenn fësalu ko comme ni ñu fësale bu président Bassirou Diomaye Diakhar fay en tant que membre de la société civile naka nga gisee mbir moomu le fait que nanguñ publier patrimoine bu Ousmane Sonko. waaw loolu moom xamuñu raison yi waaye rafetluñ ko. Mm-hmm. xam nga bu dir la sangaay da nga ci da nga ci jiitu alors dafa ni lu waay di wuyoo daf koy nduroo mhm. tubaab naan il faut prêcher par l'exemple aujourd'hui xam ne ku nekk jaadu na balaa ngay dugg ci nguur ñu xam li nga am booy génn ñu xam la nga am loolu dañ ko war a matérialiser président de la république bay na waaram joxe la bon exemple premier ministre ma ca waroon topp bu ñu def seen déclaration patrimoine pare ñu veiller à ko que ñu publier ko gouvernement bi topp ci daa tax ëllëg yëpp mën koo def mais bu fekkee ni bañ ko defee ba léegi huit mois jot na defaguñ ko dafay indi ay ak ak ak xel mu tey te aujourd'hui dafa am urgence su mobiliser tous les sénégalais au service du Sénégal loolu nag encore une te tekkul ni ñëpp dañoo war a dem politique ànd ak nguur gi déedéet ak faaw mu am ñoo xam dañuy ne ci opposition bi am ñu ne société civile am ñu ne ci ci ci ci ci ci ci gouvernance bi nekk nekk ci nekk ci régime bi loolu mooy moo moo moo moo baax di. Mm-hmm. équilibre la société civile bu forte pouvoir bu am majorité bu doy di liggéey am aussi opposition critique parce que opposition. Mm-hmm. dafa am rôle de contrôle. et de critique critique nag mooy lu baax nga lu baax na lu baax nga lu baaxul loolu moom mooy tax Sénégal tey mën a nekk ab cin ba am day am ñetti tànk. bu ci bu ci bu ci bu ci nettoyé rek ci mën naa këpp te jàpp naa ne dans un souci de renforcer la démocratie il faut encore une fois que nos nouveaux gouvernants acceptent la critique de l'opposition surtout que nag on a la chance à mon avis d'avoir une opposition responsable te lii fi xewoon na ko élection am na avant sax résultat bi di génn woote nañu sargal ki gañe ñaanal ko yàlla may ko ndam loolu kat dañ ko war a dañ ko war a sant bu baax a baax a baax Mm-hmm. maintenant en conclusion dafa jaadu tey ñu xam déclaration de patrimoine doomu premier ministre kese mais ñëpp ndax ñu mën a joxe exemple ci bonne gouvernance ba ëllëg képp ku ñu ko woo rek euh, doo ci am loo ci loo ci ñànjoot mm-hmm. ni mu doon rafetee tamit ñu bàyyi affaire amas azer ak yu mel noonu. Mm-hmm. ñu yoon leeral ko wala assemblée bi bu ñëwee mu taxawal leen commission d'enquête parlementaire ndax loolu euh, signal la de bonne gouvernance wane ne amuñu xaaj ak seet ci loo xam yëpp ñoo ko bokk. ñu ngi lay remercier bu baax a baax euh, Babacar Mbaye Ngaraf euh, jot bi bariwul yaram bi neexul wante accordé nga ñu euh, temps ñu la si remercier bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Ndeye Comba. voilà réew mi jaral nañu lépp loolu. dëgg la may fàttali ni Babacar Mbaye Ngaraf euh, yow yaay président bu mouvement citoyen alliance sauver le Sénégal nekk coordonnateur de la plateforme Nayler jërëjëf Babacar Mbaye Ngaraf.